Uh, waa asalaamaaleykum waa Jës waa asalaamaaleykum waa Sénégal tey nag li ma bëgg doon dafa ñëw fii nga xam ne ne mooy place uh, Bébé Sila uh, ki fi nekk di sama tonton bu baax sax muy Diadia Dieng gis ngeen moo ma solal lii nii tey dama koy dalal sama émission li ma bëgg a doon daal di dugg ci biir waxtaanal moom dégg ko sama micro bu paree nag daf ñuy daal di wax li nga xam ne ne mooy biir bi nooy def pour ñëw mu jaare ci jàllaabe chemise yu rafet yi lépp a ngi fi wareet léegi nag damay daal di def dugg daal di xool sama tonton boobu waxtaan ak moom ay fii euh, ci sama place euh, nijaay bii nii nga xam ne mooy bébé si laa euh, jàkkaarloo ki nga xam ne ne mooy Diadia Dieng moo fi nekk bëgg koo dala sama émission laaj ko moom lan la bëgg a doon dafa Diadia nag maa ngi fi rek leen di nuyu di leen ziar di leen sant di leen gërëm di leen wax dal leen ak jàmm yoonu wax El ñu ngi leen di fay di fasiyene di len deglu di laaj di tontu bëgg a tontu seen laaj inshallah euh tonton jaaje dama la bëggoon dara ci sama émission lima ma bëgg doon ma bëgg la laaj yow lan nga bëgg doon. waaw pratiquement de lima ma bëgg doon comme doona gumna commerçant pour le moment li ma bëgg doon moy nekk ci bu mag ndax ndaxte fi ma jaar bari na amna lu bari lu ma liggéey yalla dimbali ma ba période bi ma tollu man nekk ci commerce bi. kon li nga xamante ne bi doona gum naa ko nii muy commerçant maa ngi ciy ñaan nekk ci bu mag a mag loolu daal laa bëgg a doon su ma jegee bu baax nee na moom commerçant bu mag la bëgg a doon commerçant bu mag la bëgg doon en fait Tonton euh, Diadia man damaa gis ne ne ku ibbi boutique léegi dangay def ay jiin peew xale yu jigéen yi ñuy sol yow nga ñëw def ay jàllaabe maraakis xam nga ak ay chemise yu rafet lu waral loolu waaw li ko waral mooy bëgg di def innovation rek lu bees ndaxte jeunes yi mel ni man ñu ci bari ku ci ubbi di jaay prêt à li ngay préféré mooy di jaay ay pain di jaay ay jean yu jigéen yi ay bodéeg yooyu yooyu nag c'est pas c'est pas bépp loo xamante ne bi lu bon la mais man dama je préfère man di jaay yoo xamante ne bi mooy comme yi nga gis sama ginnaaw robe marocain yi yu ànd ak ay col ak ay col ay jàllaabi yoo xam ne nii day jot sëkk yiw yooyu daal la préféré di ko jaay pour indi lu bees rek def innovation bañ a sóor comme ñi nga xam ne samay moroom ñu ci bari ci lii la ñuy yëngu ma jéem a ñëw pour indi leneen lu bees loolu kese moo ma ci poussé. loolu loolu laa bëggoon ci laa bëggoon a ñëw lan moo la ci poussé lan moo la poussé pour nga ibbi boutique bi def ci yii nii lan moo waral lool. waaw li ko waral nag mooy euh, comme ni ma la ko waxee sànq daanaka xanaa waxee ko beneen fànn mooy. gis naa ñu bari fii ma nekk nii boutique yi bari nañ fi ñuy jaay loolu te yéen ñëpp bu ngeen bokkee lenn lu ngeen di jaay bokk benn site bu ngeen nekk amaana kenn ku ci nekk ku nekk sa wërsëg ngay jot mais nag kenn ku ci nekk amaana bu kii defoon ci lii kii def ci lii kiy def ci lee kenn ku nekk mën naa am lu ëpp loo xamante ne bii mooy li ngay am ma xool na gis ne site bii ñi fi nekk xaaj bi yëpp loolu la ñuy def jéen bodi ak yooyu ma préféré génne lu bees indi lii pour investir ci jéem a xool loolu dong moom ma ci poussé mais du leneen doonul loo xam ne dañ ma ci ne lii nga war a def wala lii mais gis ne daal comme bari na ñuy yëngu ci leneen ma naa jéem a innové site bii ma nekk def ci lii essayé pour xool loolu dong moo ma ci poussé pour ah, rafet na kon niñ ko déggee mais defe naa ne moom nekkul ci affaire euh, yëre yeeg yooyu noonu ak kama kii bi maraakis yeeg yooyu noonu dafa mel ni ne dafa am wari ak euh, da nga da nga yor waret waaw en plus ci biir boutique bi am naa ci yi di ko ci def euh, ak boole kook njaay mi may njaay ndaxte comme ñu ngi jaay te site bi ñu nekk boutique bi ñu nekk wari xaj na ci lépp ngir bëgg gëm sa bopp daal pour jéem a liggéey moo tax daal lu ñu xam ne mun nañ ci dugal suñu loxo lu mën a ànd ak suñu commerce bi ñuy def dinañ ci jéem parce que moom la tubaab di wax naan boo risqué wul dara doo am dara léegi foog ñuy risque di jël loo xamante ne dinañ ci investir mu néew ko bari ngir bëgg rek ëllëg ak si biir bu ñu amee suñu soxla fajal ko suñu bopp te duñ ko diis kenn loolu rek moom moo tax mais boutique bi ñu ngi jaay ay jàllaabi ay marocain marakiis ay robu jigéen jàllaabi jigéen ay chemise ay col waaw ba waaw mu ngi noonu yooyu yëpp ñu ngi koy jaay kon nag bu ñu gisee leneen loo xam ne mën nañ ko cee ñambaase te du yàq dara ci li ñuy def bëgg daal avancement rek ak fi ñëpp di yegg ñu yegg fa loolu daal moo ñu tax a jóg moo tax fu nekk ñu fay jéem a dugal suñu loxo loolu la. incha allah defe naa ne dégg ngeen ko bu baax a baax mais dafa mel ni bitig bi am na euh, ay kii nii contact ak lépp soo paree da ñu koy jox pour ki nga xam ne ne dafa bëgg a ñëw seet si baax yi nii daal di ñëw facilement. waaw waaw waaw incha allah rabbi képp ku fi bëgg a ñëw daal fii nii ñun ñu ngi nekk basé wu Sicap Mbao 228. Sicap Mbao en face euh, école David Diop suñu numéro téléphone mooy 77 110 31 92 man mi fi nekk nekk gérant bi maa ngi tudd ji Dieng kon képp koo xamante ne bii bëgg nga ci yi nga xam ne moom la ñuy jaay lu demee ni li nga sol ak yeneen ak yeneen benn la ci li ñuy jaay ku ci soxla yeneen ak yeneen am contact yaa ngi noonu 77 110 31 92 ku ci soxla boo ñu woowee ñu tegtal la nga ñëw gisal sa bopp. xool li nga bëgg ñu defal la ci xéewal ndax prix abordable na aussi waaw lool daal moom la quoi loolu mooy contact yi. mais ba gaa ngi ñëw bu baax rek. waaw ñu ngi sant yàlla di fortaatu comme biñ ko ubbee nii yàggul tout début est dur la tubaab wax comme ni ma ko waxee sànq mais ñu ngi fortaatu ndànk-ndànk fur et ñuy dem nit ñi diñ ci gën a xam ak bu ngeen ci jàppee comme seen émission bii nii wër na àdduna moom incha allah rabi jàpp nañ ne bés ñi tey luñ ci doon am dina yokk gis nañ ne El daal mu ngi dox am nañ ci mbégte lool am ci cawarte bi ñu seetsee ngir def ak ñun émission bi di leen ñaanal it émission bi dem dema dem ba kawe seen jot ngeen am ay télé télé ak rajo rajo ni ko nit ñi amee comme li may ñaanal sama bopp doon commerçant bu mag ngeen dem ba nekk aussi ñoo xamante ne bi dañuy am ay télé télé yu mag yoo xam ne day nekk yu ñuy gën a suivre ci biir réew mi loolu laa leen di ñaanal. dégg ngeen sama nijaay bi euh, tonto Dialy Dieng li mu wax euh, kontaan kontaaneen bu baax euh, rafetlu nañ ko bu baax bitig bi daal mu ngi nii génn nga lépp loo bëgg mu ngi fii ci loo xam ne ne lu yiw la lépp loo bëgg tey prix bi demeewul noonu moins cher la xam nga dañ koy wanteer quoi xolal sama gars ñi may seetaan commentaire yi dama bëgg ngeen ñëw ci boutique bi daal di seet si bébé di ngeen am lépp loo leen bëgg incha allah bébé Xeya Marrakech lépp loo bëgg affaire yaa ngi nii dañ lañ koy détaillé après. allez ciao damay daal di def ba beneen yoon rek ci sama émission li ma bëgg doon tey sama oncle laa toogaloon fii nii allez bye coupé.